addis ba dafa wax ne umra ci biir weeru ramadan day wecci aj màkka kon nag ku ko man war na cee farlu bu baax a baax moom nag mook aj ñoo bokk ay ponk ñoo bokk armal ak wër kaaba ak dox safa ak marwa waaye moom daa gàtt boo xasee yéene muy armal gi nga wër kaaba dox safa ak marwa rek wattu moo cee topp mu daal di jeex foofu képp la yem wal xilaaqu wattu ga nag afdalu moo gën fil xajji ci aj wal xumrati ak xumra bu dee góor moom fi ñu ko fi digalee wattu rek muy aj muy xumra na xam ne wattu ga daa gën waaye bu jempo itam mu doy waaye ndegam góor la nag moom wattu ga ba mu set moo gën jemp ga nde moo tax mu teg ci wa taqsiru jemp yu ji siw dana doy bu jempo itam mu doy wal yu qasir na jemp min jamihi shahrihi ci mboolem kawaram nga xanaa bu dee bu góor na bu dee jemp day jemp ba mu gàtt bu baax a baax da koy da koy jempe da koy dagge fu jege fa mu saxe moom kawar ga wa sunnatul mar'ati yoonu jigéen nag a taqsiru mooy jemp jigéen nag moom du wattu nel benn yoon xanaa rek bopp bi xaañu mbaa mu am ngànt ba tax mu sañ koo wat ngir faj wala yooyu waaye du wattu nel benn yoon bu dee fii itam fii itam bu dee jemp day dagg tuuti rek ci kawar ga waaye du aajowu mel ni góor di ko dagge fa mu saxe daanaka déedéet bu dee jigéen moom lu toll ni kóolu baaraam lu tuuti rek lay jëmp ci kawar gi wala ba asa ayut an yaqtu la bu reyee al muhrimu aji armal al fa arata janax wal xayat ak jaan wal xaqraba ak jiit wa shibha ak nuróog ñoom wal kalba ak xaj ba al xaqoora ba di ab gëddewaa kon wa maag la nga xam ne yaadoo dana jalgati mina di bi ci till yi wa sibaay ak ndegment yi wa nax yaa ak lu mel ne ñoom boo xasee armal aj wala xumra ba kere nga yeewi ko day araam ci yow nga rey orab woo xam ne daa dëkk ci suuf si rey ko mbaa xoqatal ko mbaa woon ni ay nenam mbaa def ko dara rek doo ko sañ ba kere ngay yeewi ko de bu dee rabu géej moom niki napp jën mbaalu ko nur mën nga ko moom wàññiwul dara waxilla lakum saydul baxari wa taamuhu mataaxan lakum wali sayyaara wa xurrima alaykum saydul barri maa dumtum xuruma waaye daam yoo xam yonte bi ci bopp moo ko seetee wax ne moom mën nga leen rey bi nga armalee te du wàññi dara moo xam ci xorum jala moo xam ci àll bala yooyu nag moo tàmbalee janax ak jaan ak jiit ak xaj bi màttee ko bawe bi ne xaj bi màttee ko bawe nag yépp rabu yu fàdd rek dugg na ci biir moo tax mu teg ci ak lay jalgati ci xeet til yeeg ndegment yi ndegment mooy rabu yu fàdd yépp mën nga leen rey wa yàqutul dana rey mën a tayri ci njanaaw yi maa la nga xam ne yuttaqaa def na ragal adaahu loram nga wax yuttaqaa def na wattandiku benn la nen xirbaani ci baaxaañ yi wala ahdiyati ak liccin yi faqat dong maanaam xeet yi naaw ci jaww ji daal loo ci xam ne moom it daa am ngaañ mën nga koo rey bu fekkee ne boo ko reyul rek mën na laa lor kon mën nga ko rey moo xam xeetu baaxaañ la moo xam xeetu liccin la waaye itani bu dana moytu fii xajji si ci ajam nga wa xumrati ak xumraam nga an nisaa ak jigéen ña dalay bëgg a wax yi nga xam ne ku armal aj mbaa xumra ba kar nga yewiku dañ la koy aaye bokk na ca jote góor jigéen say boo takk nag ne fa mu armale moom ba kere muy taxaw arafa saa yu fi jote boobu amee rek aj ga yàqu ba tey buñ taxawee arafa guddi googu nga xam ne mooy guddi fukkeel gi muy bët setee muy nekk fukk ba tey buñ jotee mu yàqu bëccëgu fukkeel bi itam jàppal ne li feen ñu def kenn ci yaar yi muy sànni jamray xàq ba ak tawaaful ifaada li fekk defuñu kenn ci yooyu yaar te ñu ngi ci bisu fukkeel bi ba tey bu jote bi amee dana yàq waaye nag buñ defee kenn ci yooyu yaar ni ki sànni jamray xàq ba te defaguñ ifaada buñ jotee itam du yàqu addu rek moo cay war ba tey bu fekkee bisu fukkeel bi jàll na jot te def sax kenn ci yooyu yaar muy jamray xàq ba mbaa tawaaful ifaada waaye bis boobu jàll na rek moom ba tey yooyu jamono bu jotee itam du tax jote nga yàq aj ga addu rek moo cee war waxtu yi ba ak gët gët mooy lat ko lañ bu dee ci yoonu maal dañ koy def ñaari xaaj lat ko lañ bu góor ak bu jigéen lat ko lañ bu jigéen mooy bi nga xam ne boo ko laalee dalay taq bu baax ba noppi xeeñ-xeeñ bu am doole boobu nag lañ araamal ci góor ak jigéen ñoo ci yemoo buñ armalee ba kere ñuy yewiku lat koleñ bu góor nag mooy bi nga xam ne boo ko laalee du la taq bu baax du xeeñ bu baax mel ni ward ak yasmin boobu dañ ko sib rek waaye laal ko sax du tax alamaan war ca ba ma xiita siyaa bi ak yu ñaw yi yére ya yére yu ñaw moom ci góor rek lay araam bu armale waaye jigéen moom mën naa sol yére yu ñaw waaye góor moom du sañ a sol benn yére bu ñaw ba kere mu yewi ko wa sayd ak rëbbu rëbbu nag moom ñoom ñaar ñëpp dañ koy aaye ni mu ko waxee woon léegi ku armal aj mbaa xumra ba kere mu yewi ko dañ koy aaye rey orop mu dëkk ci suuf si mbaa xoqtal ko mbaa woni ay nenam mbaa lor ko ci genn wet moom it am naa la maan daañu ko wax ci kanam waqatala dawaab bi ak rey daaba ya wa ilqaa at tafasi ak dindi tilim tilim ba tey bu xasee armal na moytoo rey benn daaba nit ki du rey aw teeñ mbaaw fel mbaaw yoo bu ko seppi sax sànni du dindi itam tilim tilim boo xam ne du sobe bu dee sobe dana ko dindi moom ngir bañ koo julliwaale waaye du sañ a wat kawar du sañ a jemp ay naanu mbaal nur lool du ci sañ a def leen daal wala yu xat yi du sañ a muur raasuxoo boppam fil ihraami ci armal ga wala yaxliquxoo du ko sañ a wat illa min daroori ndare ngir lor góor nag bu xasee armal daa war a bàyyi boppam rek muy bopp kese du ko sañ a muure lañ xamoo ñu koy muure mel ne mbaxana mbaakaala sañu ko muure leneen tam nit ki rek jël am bu bu teg ci mbaa dara déedéet day bàyyi bopp yi bopp kese rek moom su ko muuree rek amala maan du sañ a wat bopp bi waaye du sañ du sañ a wat tam geneen kawar gu bokk te kawaru bopp bi lu may rek lor nit ki dafa gaañu wat ko nag ngir faj ngir fajtal ko fekk loro ko waral moom du ci am bàkkaar nda du nda du teye sax moom alamaan wat gi ci kaw ngànt ak wat gi te amul ngànt moom bu dee ci alamaan di ñooyee moom fa ñu wutee nag mooy bu fekkee ngànt tax du ci am bàkkaar te bu fekkee amul ngànt moom dana am bàkkaar su ma yeftadi topp dana jotoo bi siyaami salaasati ayaamin ci woor ñetti fan aw itxaami sittati masaakiina wala leel juróom benn miskiin mudday ni ñaari mudd di kuli miskiin ñel bépp miskiin bi muddi nabi ci muddum yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw yan suku aw yan suku wala muy jaamoo bi shaatin ci ab gàtt yat ba mu xaabab dana ko rendi xaysu shaa fu ko soob xaysu shaa fu ko soob minal bilaadi ci réew ya nee nañ liñ la aaye woon ci armal nag boo ko defee dem alamaan alamaan dina kenn ci yett yi lay doon loo ci taamu rek mu baax bu la neexee woor ñetti fan bu la neexee leel juróom-benn miskin miskin bi da nga jox ko ab kilo ndax ñaari mudd yi buñu jàppee mudd ab liibar ñaari mudd yi kon ab kilo lay doon ba tey bu la neexee rendi ab gàtt boo xam ne foo ko rendi rek baax na bu la neexee sax bàyyi ba ñibbi door koo rendee foofa watal basu dana sañ a sol almaratu jigéen alxuffayni ñaari bot wa thiyaaba ak yére yu ñaw fi ihraamiha ci armalam nga maanaam góor la ñuy aaye bu xasee armal muy sol ay bat wala muy sol yére yu ñaw ba mën a warub cër waaye bu dee jigéen moom mën naa sol ay bot mën naa sol yére yu ñaw te du wàññi dara wataj tani bu dana teet ba dana moytu maa siwa zalika lu dul loolee mi maaja la nga xam ne yejj tani bu dana ko teet ba dana ko moytu arrajulu góor bu xasee weesu yooyu yaar muy bot yeeg yére yi ñaw leneen luñ aaye góor rek ci armal gi ba kera mu yeeyu ko daañu ko aaye jigéen ba tey wa ihraamul mar'ati armalu jigéen fii waccihaa nekk na ci kanamam wa kafayhaa ak yaari tengam wa ihraamu rajuli armalu góor fii waccihi nekk na ci kanamam wala asihi ak boppam lim njëkk wax ne armalu jigéen mi ngi feeñe ci kanamam ak ay tengam day wane ne jigéen bu xasee armal du sañ a muur kanamam du sañ a muur ay téngam ni ki sol ay gants mbaa laxaar dara ci ay téngam du ko sañ kanamam ba tey ndegam moom du awra da koy bàyyi rek noonu bañ koo muur ak dara lu may nag mu bëgg sutura tax mu tasee góor ñi bàyyi la muuroo woon mu yooru ba ci kanam gi waaye pingewu ko ca dëgëralu ko ca loolu moom du wàññi dara lim ne armalu góor mi ngi feeñe ci kanamam ak boppam mooy góor bu xasee armal na moytu muur boppam na moytu muur kanamam daa war a bàyyi kanam nga muy kanamu kese bàyyi bopp ba muy bopp kese bañ caa muur dara dara waaye bu ca muuree dara rek daal di am alamaan wala yalbasu du sañ a sol arrajulu góor alxuffayn ñaari bot fil ihraami ci armal ga illa an laa yajida ndare bu dafa amut na alay ni yaari dàll fal yaqtahuma kon na leen dog asfala ñu gën a suufe minal ka'bayn ci ñaari dojore ya nee na góor dañ koy aaye bu xasee armal ba kera mu yewiku dañ koy aaye sol ay bot lu may nga xam ne amut lu may ay bot fekk ay bot kese la am nag moom dañ koy may mu sol bot yi waaye da koy dagg ba nga xamee ne ay dojaram day feeñ waaye bu mu gudd bay muur dojar ya wal ifraadu wéetal bil xaj ci aj afdalu moo gën xindana fi nun minat tamattu ci tamattu wa minal xiraan ak ci xiraan maanaam boo dee armal aj dafa am ñetti xeeti armal yu bokkut armal aju kese mooy ifraat moo xam gannaaw ba da nga umra teg ci wala déet waaye moom daal nga armal aju kese def ko ba àggal loolu moo tudd ifraat bu dee ci yoon maal nag moom moom lañ gën a taamu ci yaari ci des muy tamatu ak xiraan tamatu moom mooy nga yéene umra kese def ko ba àggal wala batiku nag aj loolu moo tudd tamatu moom nag moo ci dàq moo ci gën a neex moo tax baat tamatu sax bànneexu lay firi nga xam nga umra daa gàtt boo yéenee rek daal di wër kaaba dox safa ak marwa daal di jemp rek lépp li la aaye woon sañ nga ko ko defee nga mel ne ku mës a jaay ku mës a jaar ci armal bàyyi bàyyi ba aj gi jege seen nga daal di armal aju kese loolu mooy tamatu moo tax moom moo ci dàq xiraan nag moom mooy nga yéene ndoo yaar yëpp mbaa nga yéene xumra ba noppi wëlbatiku doore yéene aj teg ca bu xasee yéene aj moom doo ci mën a teg xumra ndax mi ngi mel ni nga yéene julli farata rek doo ci mën a teg naafila doo am fu mu tegu ndax ndax faras daa am doole te naafila néew doole waaye nag boo yéenee xumra gannaaw ba nga wëlbatiku yéene aj teg ca mbaa nga yéene ndoo yaar yëpp loolu mu tudd xiraan xiraan baat bi lëkkale lay firi moom na moom na moo ifraat ñoo bokk jëf ndax xam aj ak xumra kenn ku ci ne am nga armal am nga wër kaaba am nga dox safa ak marwa waaye boo xasee yéene yaar yëpp itam da ngay wër génn wër ñoom ñëpp ñu bokk ko nga dox safa ak marwa benn yoon ñoom ñëpp ñu bokk ko nga xam ne kon li wuutelee ki def ifraat ak ki def xiraan mooy ki def ifraat moom aj kese lay am ki def xiraan nag moom yaar yëpp lay am day boole am aj ak xumra yaar yëpp waaye bu dee ci yoon maal daal moom ifraat moo leen gënal yéene aju kese def ko ba àggal gannaaw ba nag moo xam na nga cee teg xumra moo xam doo ko ca teg faman xarana ko xiraan aw tamattaxa wala mu def tamattu min xayri ahli màkkata ci lu ñuñ màkka fa xale yi war na ko xaddiyun xaddiyu yadbahuhoo moom dana ko rendi aw yan xaruhoo wala mu koy loj bi minan ci minan in awqafahoo ndéem taxawaloon na ko bi xarafata ci xarafa wa in lam yuqifu ndéem taxawalu ko woon bi xarafata ci xarafa fal yan xar na ko loje bi màkkata ci màkka bil marwati ca marwa bax da an yadduxula ci gannaaw ba mu tàbbee muy gannaaw ba mu duggee bii ak moom minal xilli ca xilli ja boo déggee xilli rek mooy àll ba nga xam ne sañ nga faare bu bu fekkee ne fekkul nga armal boo déggee xorm nag mooy fa nga xam ne dañ koy ormal nga xam ne moom bu fekkee nekk ko ci armal li tax nga sañ faare bu dara dara daa wax ne nag ku def tamatu mbaa mu def xiraan te bokkoo ci waa màkk ak la ko wër kon na nga war a def addiyu addiyu moo xam ne def nga tamatu mbaa xiraan rek moo ko waral boo bakkee ci waa màkk ak la ko wër nag moom boo defee tamatu mbaa xiraan tam du tax addiyu war la addiyu ma nag benn nga rendi ko mbaa nga loje ko ca minan ndegam ba ngay taxaw arafa ànd nga ak moom bu fekkee ba ngay taxaw arafa nag yoroo ko woon kon danga koy rendee ci màkka ca marwa di sax ca màkka foofa rendere mu baax waaye taamu nañ foofa ca marwa waaye nag bu jëndee addiyu mi foofu ci màkka rek day aajoo nga jàpp ci buum nga ñoddi ko ba ca xilli ja mooy ba ay tànkam génn xorom ji nga door a ñëwaat rendi ko nag foofu ci biir màkka xanaa ñoo bëgg ay tànkam jaar ci xilli ja te kon nag boo ko wutee foofu ci màkk rendi ko fa saasa rek kon ab tànkam laalu ca xilli ja fa in la may jundéem amut xaddiyan addiyu fa siyaamu salaasati ayaamin kon woor ñetti fan fil xajji ci aj ga yaa ani dana jublu min waqti yuxrimu ci waxtu wa dana armal ilaa yow mi xarafata ba bisu arafa daa wax ne nag bu fekkee ne digal nañ ko addiyu waaye amu ko ca bam defee tamatux mbaa xiraan kuñ digal addiyu te nga xam ne amoo ko rek benn amoo njëgg ba gisoo ko ba di ko jënd kon dañ lay digal nga woor ñetti fan ci bis ba nga armale balaa ngaa taxaw arafa ba ci bis arafa ba sax mën nga ko wooraale ngay woor ñetti fan ci diggante boobu boo delloo nag wooraa juróom-ñaar boole ca muy fukk na ko leeral léegi fa in faataxoo ndem raw na ko zaalika loole saama mu woor ay yaamu minan fani minan wa sabaxatan ak juróom-ñaar isaara jaxan dem dellu na bu fekkee ne waxtu wa nga armale digganteem ak arafa ci tuufaa woor ñetti fan kon na ngay woor ñetti fan ña ngay nekk ca minan mooy bisu fukk ak benn bisu fukk ak ñaar bisu fukk ak ñett ba noppi nag boo ñibbee nag wooraat juróom-ñaar dolli ca bu ko defee nag mu daal di nekk fukk alxuraan di wax naa tilka xasharatun kaamila wasifatu tamatu xi melaw tamatu an yuxrima mooy mu armal bi xumratin ci xumra su ma yaxin la topp dana yeewiku min xaa ci moom fii ashuril xajji ci weeri aj su ma yaxuj ja topp mu aj min xaamihi ci atama qabla rujuuxi ci njëkk dellu ilaa ufuxi ba ci goxom ba aw ilaa misli ufuxi wala ba ci fu toll ni goxom ba fil bux di cib soriwaay jëmi tamatu waxal naa ko léegi moom mooy nga yéeni xumra kese def ko ba àggal wëlbatiku nag aj lay tax nag léegi boo ko defee alamaan war la ci mooy addi war la mooy ba ngay noppi ca xumra ga fekk weeri aj yi teru weeri aj nag mooy shawal korite ak dulxijja diggu tabaski ak fukki fan njëkk ci dulxijja weeru tabaski kon bi la laaj yan mooy weeri aj da ngay wax ne mooy shawal dulxijja dulxijja baa nga ne fukki fan yi njëkk ca dulxijja koy tuddee ci wolof korite diggu tabaski aw tabaski léegi nag bu fekkee ba ngay noppi ca xumra ga fekk na weeru korite teru rek xamal ne kon bu fekkee jot laa dellu ba fa nga bàyyi ko woon mbaa fu toll ne moom cib soriwaay nga toog daal aj nag su boobaa alamaan bi war la waaye bu fekkee def nga tamatu waaye ba ngay noppi ca xumra ga booba fekkul korite teru kon alamaan du la ci war kon balaa dara war ci tamatu ba rek ba nga cay noppi fekk weeru korite teru te it jot laa ñibbi ba fa nga bàyyi ko woon mbaa fu na toll cib soriwaay door aj si waaye bu dul loolu rek kon kenn du la ca teg men adiyo wali haasa ñeel na kii ay yuhrima mu armale min màkka te ci màkka in kaana ndem nekkoon na bihaa ci màkka daa wax ne nag boo defee tamatu nga xam noppi nga ci xumra gi fas yéene armal aj nag kon ba tolloo ci armal aj ga du aajoo ngay génn ba ci sa miixa mën nga koo armale rek foofu ci biir màkka du aajoo ngay génn wala yuhrimu du armale min xaa ci màkka man araada ko bëgg ay ya atamira mu xumra xaataa yaxru jëmbate mu génne ilal xilli ba ca àll ba nee na nag boo nekkee biir màkk ba noppi bëgg armalal xumra faaw nga génn ba ci xilli ja xilli ja mooy fa bokkut ak xorom ji moo tudd xill ndax faaw dañoo bëgg nga dem ba ca xilli ja nga armale fa ndax nga boole xill ak xorom yaar yëpp waaye boo toogee biir màkk rek daal di armal xumra yi daal di wër kaa ba dox safa ak marwa daal di wattu maa nga jemp rek te mel ne kon sa tànk laalu ci xilli ji benn yoon kon na nga dem ba ca xilli ja nga armale fa door a ñëw nag ndegam daa fekkul nga nekk màkka te bëgg a umra xilli ja foo ko fa defee mu baax waaye am na fu ñu fay taaw ñu koy tuddi aljihir raana wala tanhim wasifatu xiraan melu xiraan an yuxrimu mooy mu armal bi xajjatin ci aj wa umratin ak umra ma xan boole seen wa yabdo waaye day jëkkee nag bil umrati ca umra ga fii niyatihi ca yéeneem ja xiraan baat bi day firi lëkkale kon mooy boole yéene xumra ak aj waaye kon na njëkk yéene xumra ga aj ga topp ca ndax bu fekkee daa njëkk yéene aj moom farat daa am doole xumra mi sunna du ca mën a tegu ca gannaawam wa ida ardafa ndeem tofal na alxajja aj ga xalal xumrati ca umra ga qabla an yatoofa ci njëkk muy wër weer ka xatu muy julli ñaari rakka wax ba kon moom xaarinun aji def xiraan la irdaaf ak tofal lay firi waaye moom nag xeetu xiraan la saa yoo xam ne moom yéene na umra kese gannaaw ba xelam nekk ci yéene aj teg ca mu daal di yéene aj teg ca umra ga te loolu mën naa nekk loolu moo tudd irdaaf moo xam nag booba tàmbali naa wër wërub umra ba wala tàmbaleegut a wër wërub umra ba li mu ne xabla an yatoo fa jërta jàpp moom kay bu nekk di wër daal di yéene ajit du tee rek muy irdaaf bu wërin ba àggal sax te julleegut ñaari rakka it daal di yéene aj teg ca it irdaaf lay doon dañu koy sib rek nag mu des nag bu fekkoon ne wër na ba àggal ba julli ñaari rakk yu wër ga nga xam ne kon julli na sax ñaar rakk yu wër ga kon moom irdaaf mënta wérati faaw day àggal rek xumra ga waaye bu yéene aj teg ca itam du tax ñu jàppe ko irdaaf walay saxala ahli makkata dir mi war waa makka xaddiyun addiyu fi tamatuxin ci tamatu wala xiraan du ci ageenu xiraan maanaam koo xam ne ngaa dëkkee màgg mbaa la ko wër moom boo defee tamatu mbaa xiraan du tax addiyu war la ca wa man xàll ko yeewi ko itam min xumrati ci umraam nga qabla ashhurin xaaji njëkk weeri aj su ma xaaja topp mu aj min xaami ci atam ma falay sa bi mu tamattiin dir muy aji def tamattu doon naa ko wax léegi maanaam bu fekkee ba ngay noppi ci xumra ga fekkul korite teru kon boo toogee itam aj te jot laa ñibbi itam du tax alamaan war la mel na rek ci weeru koor wi ci nga dem màkka ni ko ñu bari defee dem ci xumra ji noppi nga ci xumra ga laata weeru korite wi teru su boobaa kon boo toogoon foofu ba ajitam du tax alamaan war la wa man asaaba ku jam saydan aw rabu fa alayhi war na ko jasaawun pay misluma kem la nga xam ne xatala rey na ko mina naxami ci ay juri kër yaxkumu dana àtte bi ci moom sawa xadalin ñaar ñuy boroom ak maandu min fuqahaa il muslimina ci way dégg fiqi jullit ñi dañoo aay woon ku armal ba noppi laata mu yewi ko muy laal aw rab mu dëkk ci suuf si mu ne su ko defee nag dana am alamaan dañuy seet nag bu fekkee loolee mu rey am na lum yellool ci juri kër yi maanaam ci xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëleem ñu alamaan ko lu mel noona waaye loolu dañuy seet ñaar ñu xam boobu àtte ci jullit ñi ñu seet la mu rey ne ko joxee ci nangam ne ko joxee ci aw xar mbaa joxee ci bëy mbaa nag mbaa gëleem loola moom ñaar ñu maandu ci xam googu wàll ci jullit ñi ñooy seet loola wa maxalluhu bérébam nag minan mooy minan in waqafa ndéem taxaw na bii ak moom bi xarafata ci xarafa wa illaa ndéem taxaw tamum arafa fa makkatu kon màkka waaye doxul waaye day dugg bii ak moom minal xilli ca àll ba nee na nag loole ñu ko alamaan te mbokk ci xeetu juru kër bu fekkee xasul na ko jiital ba taxawum arafa kon ci minan la koy rendee waaye nag bu fekkee taxaw tamum arafa kon da koy rendee ca màkka foofee ca marwa te bala mu ko rendi mu ñoddi ko dem ak moom ba ca xelli ja door a ñëwaat ak moom rendi ko ndax dañoo bëgg tànku addiyu mi maanaam tànku loolee nga xam ne mooy pay bu rabu ga dañuy bëgg tànkam jam ca xelli ja xelli ja mooy lu bokk te xorum ji kon nag génn moom ba ca ba ca xelli ja mu ñëwaat ak moom door ko rendi foofu ci biir màkka wala xoo ñeel na ko añ yaxtaara mu tànn zalika loolee aw kafaarata taxaami masaakiina wala kafaarak ñamu ay miskin añ yansura te moo di mu xool ilaa qiimati saydi jëm ci xëymay rëbboo taxaaman ci ñam fayata saddaqa te muy saraxe bii ci moom alamaan boobu nee na ñetti xeet la ba tey bu ko neexee ñu bañ koo alamaan alamaanub joxe xar mbaa bay mbaa nag mbaa gëléem dañ seet la mu rey lu war a toll ci ñam lu war a toll ci ñam rek mu joxe lu toll noonu ci ñam ñu jox ko miskin yi des naa seet la mu rey rek luy xaymaam ci ñam rek foofa mu génne ñam ba jox ko miskin ya ba tey mu baax aw xaddala zalika wala kem loolee siyaaman ci góor te an yasoomu moo di mu woor xan kulli mut ni walis mépp mudd yow man ab bis wali kasiri muddi mu woor tam ñeel damu mudd yow man bis kaamilan buy aji mat ba tey bu ko neexee loolee mu rey bu ñu xaymaa ba ne nangam la war a toll ci ñam mu téye ñam wa bañ a joxe ñam wa te woor na muy wooree nag mooy ñam wala ñu natt par ay mudd nu mudd ja toll rek mu woor bis yu toll noona su nattee nag ba àgg ci mudd moo xam ne matut mudd itam ca ñam wa du tee mu wooral ko moom bis bu mat mel ne buñ nattoon mudd ya muy fukki mudd ak xaaj du tee mu woor fukki fan ak benn moom loolee nga xam ne moom moo ko tee mat fukki mudd ak benn xam ne fukki mudd ak xaaju mudd rek la mooy xayma yi ñam wa du tee bu dee woor moom loolee nar a manqué da koy mot di bis mooy fukki fan ak benn lay woor wal xumratu xumra sunnatu sunna la mu akkadatun suñu suñ fedd li maratan wenn yoon fil xumri ci dund xumra moom nee na sunna su dëgër la suñu fonk lool nga def ko benn yoon ci sa dund boo xasee def benn nag moom sunna sa jeex na bu la neexee nag at mu ne nga dellu umra waat ko defee mu nekk lu ñu sopp waaye du àgg ci sunna wa yustahabu def na sopp li man ñel koo xam ne insarafa walbatiku na min makka te bàyyi koo makka min hajjin tukkee ci aj aw xumratin wala xumra an yaqoola mu wax ne aayiboona way dellu lanu taa'iboona te way tuub lanu xaabidoona te way jaamu lanu li rabbinaa ñeel sunu boroom xaamidoona te way sant lanu ko nee na sopp nañ nag boo demee màkka ba way bay ñibbi moo xam ne ngaa aji woon moo xam ne ngaa xumra ji woon nga wax ñaan googu ne nun day yàllaanu moom te ci yàlla ni dellu nu ngi koy tuubal di ko jaamu di ko sant sadaqa dëggal na allahu yàlla wax daxoo daxalam ba wa nasarate mu dimbale xab daxoo jaamam ba muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa sama te mu màbbu mooy te mu dàq al ahsaaba kuréel yi yéefar ya wax daxoo moom rek sadaqallah wax da mooy la yàlla digal yonente bi ne ko la tadxulunna al masjid al xaraama insha allahu aminina muxalliqiina ruusakum wa muqassirina laa taxaafoona da nga dem ba dugaat màkka def say jaamu ca kaaba nga yaag say àndandoo te dara du leen bundu xatal dara du leen sonal nga ne loolu day yàlla sottal na ko ndax man ñi bokk ci xeetam sax ñëw naa tey def si jaamu yàlla googu ci dara gàllankooruma kon yàlla dëggal na loolee mu dëxal yonante bi dimbali yonante bi ba mu gañee ay noonam mu yéefar ya dàq kuréel yéefar ya ñu daw mu taxawal lislaam loolu yàllaa ko def baabu li ab bunt la fi daxaayaa ci tabaski ya wa dabaahi ak rend ya wal xaqiqati ak gàttub tudd wa seydi ak rabbu wal xitaani ak làkku làkku nag mooy xaraf ci wolof yi gën a leer wa maag la nga xam ne yaxrumu dana araam minal atximati ci ay ñam wal ashribati ak ay naan yooyu mu wax ni moom la bëgg andi ci bunt bi xeet tabaskeeg lu aju ci wàllu rendeeg gàttu tudd ak rëbboog xaraf ak xeetu lu araam ci lekk naan na mu tudd na ko waaye waxul nag ci genn naan goo xam ne gu araam la moom mbaa gu dagan waxul dara ci wàllu naan da ko tudd ci tarjuma ji waaye taxul nag mu wax ci dara ki wal udhiyatu tabaski sunnatum sunna la waajibatu si suñ feddali xalaa man ci képp koo xam ne istataaxaa mën na ko tabaski moom nee na jaamu yàlla gu màgg la suñu su suñu fonk la su dëgër la ci ku ko man man gi nag mooy at ma yëpp doo ci soxlawaat njëgg ci li nga mënta ñàkk ci sa dundu bopp ak sa col mbaa sa dundum njaboot ak seenum col bu fekkee daal yow jekk nga say bopp ba njëgu tabaski ba doo dem ba loolu ci di ko aajowaat ci at ma rek yow mën nga dëgg-dëgg waaye boo agul foofu rek léegi mënoo teewul nag bu la neexee def. te fexe ba la nga koy defee dagan rek sàkku ca tuyaaba waaye daal balaa nekk sunna ci yow rek nga mane ko nii ñu wax wa aqallu ma gën jaa néewi la nga xam ne yu dana doy fiihaa ci moom minal asnaani ci ay maas al jasahu mooy jasahu mina daani ci xar waxoote moom ibnu sanat mi mooy doomi at waxee la waxees na ibnu samaaniyati ashurin doomi juróom-ñetti weer waxee la waxees na ibnu xashrati ashurin doomi fukki weer nee na bu fekkee ne xar ngay tabaskee te xar moom moo gën ci lépp lu ñuy tabaskee la ci gën mooy jasaw jasaw nag mooy na am at bu amee at moom xarma bu dugg ci atu ñaar ma doon te benn bis la mbaa ñaarit moom baax na na at mat sëkk rek loolu bu ko xar mi amee rek muy góor muy jigéen mat na tabaski lam ci tegaat nag mu ne am nañu ne ko am juróom-ñetti weer maanaam am nañu daal bu amee juróom-ñetti weer baax am nañu wax fukki weer waaye daal wax ji gën a wër moom mooy balaa mat dëgg dëgg daal am at mat sëkk rek moom wa tan yu ak san yu minal maxaas ci béy waxoote moom maa mooy béy wa nga xam ne aw faa matal na sanatan at wa daxalite mu dugg fi saaniyat ci atum ñaareel ma neen nag bu fekkee béy nga bëgg a tabaskee moom day aajowoo mu nekk san yu san yu nag mooy béy woo xam ne am na at ba dugg ci atum ñaareel ma dugg gu baax a baax niki mu am ci weer ñaari weer jëm ñett loolu mooy tax bu dee béy moom mat tabaski wala yu ji siw du doy fi daxaayaa ci tabaskiyee minal maxas ci béy wal baqari ak naye wal ibri ak gëléem ya illa sën yu ndare sën yu xam nga sën yu ci béy mu wax na ko noppi waaye daree wan ne la bu fekkee da ngay tabaskiyee lu bokk ta xar rek paaw dina mat sën yu fekk sën yu ci béy xam nañ ko ba noppi nag li des mooy ñu xam ko ci nag ak gëléem mooy wat sën yu sën yu minal baqari ci naye maa mooy ba nga xam ndaxala tàbbi na fi sanat ci at ma arraabi xati ma aji ñeenteel ne bu fekkee nag la moom bu fekkee moom ko bëgg a tabaskee la cay sànni yu mooy faaw day am ñetteet ba dugg ci moom ñeenteel ma wa tànn yu sànni yu minal ibili ci gëléem yi ibnu sitti sini nag mooy doomi juróom-benni at daa bëgg wax ne bu fekkee gëléem nga bëgg a tabaskee la cay sànni yu bay mat tabaski mooy day am juróomi at ba dugg ci moom juróom-benneel wa fuxoolu da ani kuy xar kuy xar ya fi daxaayaa ci tabaski ya afdalu ñoo gën min xisiyaanihaa ci seeni tàppaanga wa xisiyaanuhaa seeni tàppaanga itam afdalu ñoo gën min inaasihaa ci seeni jigéen lépp lu ñu tabaskee moom xara ci gën xaritam ma ci gën mooy mu góor ma nga xam ne kenn tàpp ko boo weesoo na mu góor ma nga xam ne kenn tàpp ko nga teg ca mu góor mañ tàpp door a ñëw nag ca mu jigéen ma wa inaasuha seeni jigéen ñoom xar yi afdalu ñoo gën min zukkooril maxaasi ci góor yi béy ya wa min inaasiha ak seeni jigéen bu fekkee ne amoo xar mu góor ma kon xar mu jigéen moo ca topp ci gën nga xam ne nga am xar mu jigéen moo gën nga am béy wu góor mbaa béy wu jigéen lu béy wu góoroo baax baax rek xar mu jigéen a ko gën wa foxoolu maxasi kuy béy ya afdalu ñoo gën min inaasiha ci seeni jigéen su fekkee tëli nga xar nag bay ñëw ci béy nag xamal ne faaw moom